cheikh jibril yarmande bu ñu tuddee ruusul aqlaam yi rek tudd nañ ñëpp bu doonte woon na ñun rek la dara du bougé waaye xëy na sunu tur daf faa nekk rek ñuy wéttali kon ci ak mbokk yi mbokk yi nekk ci kaw ku mel ni Cheikh ba dana baax ñu def benn rappel historique bu gàtt ndax dana tax ñu xam li ñu nekk mooy lan taxawu jirim tur wi jarul firi xam nañ mooy lan mooy ñi nga xam ne seeni jur danoo faatu jur bu góor jéem a xool leen taxawoo lan moo indi xalaat boobu kenn ci ñun faatu bàyyi fi njaboot ñenn ci mbokk yi commencé di ko taxawu ci biir loolu ñu gis ni lii ñuy taxawu baax na di cotiser di ci def waye même ñun ñi Serigne Mansour mi man na am ëlëk ay doomam nekk njirim allahu a'lam kon est ce que duñ ko jema yaatal wut lo xamni ni dana am lu ci genn di taxaw njirim yi parce que njirim mënu ñak parce que dund ak borom kër ko rek ay njirim am xalaat boobu ñëw ñu di ko togg di ci waxtaan ba amal ko ay kayit yu leer ba wutal ko compte banque léegi mu des nag fan la ñuy jëlee ñu gis ni suñu mbokku réewu lislaam bi muy réewu arab yi dañuy jóge fu sori ñëw di tonni suñu tuyaaba ji di ko yóbbu loolu mooy lan mooy moom dañu organiser wu taxawal ay kuréel ca bitim réew di ñëw di jël suñuy jirim di leen yore ñu ne ñoom kat waru ñu no gëna gëm waxu yaronte bi alayhi salam ana wa kaafilu yatim lahu aw li gayrihi fi ka hatayn yaronte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ci aljana mook ci taxawu jirim nañ fa nekké comme ñaari baram yi nañ fa nekké comme comme ñaari baram yi ixwaani fillah ahibba'i fillah doom ndey xarit yi ñaari baaraam yi ndax sore nañu déedéet ngeen ma wax leen sutantee ndax bari na déedéet bal ngelaw sax mën naa bañ a dox seen diggante waa ku toll yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa shakka ni ci kilifay waa ajjana lay bokk kooku ku ñu ne doo soree ak moom dangay ngay bal da ngay dend ak moom loolu réewu arab yooyu gëm wax jooju ba di ñu laaj suñuy njirim ñu di leen koy jox ñu ne waa Sénégal kenn waru ñoo gën a bëgg lool ñu tàllalamte loxo ak suñu mbokk yi nekk bitim réew ñoom ñu farlu lool di jël seeni tuq di jox di ci def xaalis yu takku kaw wuri ñoo koy gërëm chaque vendredi mbooleem ñun ñu nekk ci bureau bi dana wax ni na ko nekk weef la mu am ñii di weef téeméer ñii mille francs ñii cinq mille bal sax lu wees téeméer chaque vendredi waaye loolu baax na waaye teewul ñu ne nañu wut loo xam ni danay meññ di jur dara xalaat boobu moo ñu poussé ba ñu am ab bërëb fii ci booru ñàkkurab bëgg caa def dara donte ne ben terrain bi leer na bi ci dess mutation bi dess na ñu am ko it ca waalo ku ñu wax Samba jallo yalla yalla yàlla mu jaay nu suuf may nu suuf mi ngi ci kayit yoyu pour mu nekk ci turu taxawu jirim ndax mouvement bu légal la am turu bopam nga xamne lan ca def bu Serigne Mansour fatou won buñ ko dé mirage kenn du ne dafa jité won taxawu jirim kon suuf sa nek walo wala tol ba fa nek wala teere ba nekk ñàkkorab waye fekk na lepp mu ngi ci tuuru taxawu jirim parce que lepp aduna dafa fokk nga jël say ak compte banque bi lu fa way def alhamdullilah dañuy gëm ni dana ag ci jirim yi rawatina sax mu nek sadaqa jariya